di kuréel gi nga xam ne nii bi ñu sosee fii ci tubaa ak léegi yàggul waaye ci ndigal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul taxa ñu ngi amal liggéey bu am solo ngir saafara mbooleem jafe-jafe yi nga xam ne nii askanu tubaa ñu ngi koy jànkonteel ci wàllum ndox. bi ñu amee ndigal li ak léegi nag ñëpp gis nañ ne seen i jéego ràññeeku na lool loolu nag fi ñu taxaw tey ji firnde la muy Daaru Karim daaru karim nag bu yàggut lañ fi defoon ab forage waaye forage bi amoon pompe wala ay pompe yoo xam ne nii dafay manqué woon waaye bu yàggut rek gis ngeen ki nga xam ne moo di meerub Touba yëkkati pompe boobu teg ko ci loxol Ofor ñoom ñi di waa Retet taxawu ko topp ko ba pompe bi ñu def ko fii ci forage bi ba jamono yi mën nañu ne Daaru Karim ak li ko wër ak forage bi li muy ravitaillé ñu ngi am ndox macha allah loolu nag moo tax ñu ñëw nag tey fii ci forage bi am benn tukkeeb nemmeeku bu am solo boo xam ne ni fas nañ ko yenee ànd ak yéen tàmbalee ko fi nga xam ne nii mooy forage bi ñu ngi fi fekk nag ki nga xam ne moom lañ fi tegandi pour l'instant muy Baye Cheikh Ndong moom jombul dina yëkkati ay kàddu jëmale nag ci wàllu gestion bi nga xam ne ni mu ngi koy gérer fii euh, buñ pare nag door a dugg biir askan wi nga xam ne nii toog nan ab diir dundoon ay jafe-jafe ci ñàkk ndox jamono yi nag mel na ni loolu tubaab di wax seen ouf de soulagement soufflé nañ ko mel na ni jamono yi seen xel dal na ay itam seen xol sedd na ci ndox mi nga xam ne nii amoon nañ ko jafe-jafe te jamono yi ñu ngi sangu ñu ngi naan ñu ngi def lépp loo xam ne nii ñu ngi ko doon jànkonte ci jafe-jafe ndox jamono yi mën nañ ne saafara wu na kon ñu toppal leen reportage bu am solo bi ànd ci ak waa fii ci Touba Daarul Karim. Baye Cheikh Ndong ñu ngi lay nuyu di la jaar fekk la fii ci euh, daaru Karim ci forage bi mën nañoo xam lan moo fii sa liggéey. waaw liggéey bi de mooy xanaa taxawu forage bi ak euh, machine bi ñu fi teg nga xaaya toppatoo ko ak toppatoo matériel bi fi nekk munta ñàkk ba tax ne ki fi newoon dégg nga bi mu génnee it jox ma caabi ji di ma xaar ma fi ma toog fii dégg nga di ko di ko xaar loolu it bokk na ci li ma ci bàyyi ndax. barab bu ne dégg ko fa ne lu fa nekk yow la fa nekkal kon toppatoo ba ak waggar gi dégg nga lu war la loolu moo waral dégg nga fekkaay bii ngeen mu fekk dégg nga mu toog fi dégg naa leen waaye ñu ngi leen di sant dégg di leen gërëm ci seeni tànk ndax tànk yi lu am maanaa lu am farata la waaw ginnaaw bi euh, euh, sant gi sax nag Serigne Mountakha moo waroon a jiitu. nu di ko dab-dabaatal ci biir kàddu yi di ko sant te di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool dégg nga te wér ab taxawaayam waa Daaru Karim nag moom ñi ngi sant yàlla bu baax a baax ndax euh, sant ki yàlla mooy munta weesu ñàkkoon ndox dégg nga ba yàlla indil la ko amoon toll woon nañ fa it amoon nañu ay jafe lool nag moom jafe yi lool amoon nañ ko waaye fi mu ne day ngi tane lii de moom bu fekkee jëm na kanam ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a moom ndax revenu yëpp a ngi xel fii bu musoo bi fii ba euh, euh, tëlib soxna may ak looyeen ba dégg nga pësteef gay ak ak ak xaar yàlla ak fépp ñu ngi sant yàlla bu baax a baax naaw kàddooy cant yooyu nag ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu forage yi lan nga leen di wax ban kàddoo ndénkaane nga leen di wax ci wàllum ndox mi ak askan wi waaw ñiy saytu euh, forage bi yooyu de li ma leen di sant mooy ñu gën a góorgóorlu gën a dëgëral dégg seenub taxawaay tey maanaam lu mu doon lu ne ñu wéel ko ci wàllu teelu bi ak yërëmi dégg nga askan wi di doxal ci askan wi doxin woo xamante ni sii dégg nga doxin wu méngoo la ak dëkk bi doxin wu méngoo la it ak doxinu taalu bi waaw askan wi jëfandikoo ndox mi it maa ngi leen di ñaax ci képp koo ci xam ne gis nga teew bu yàqu ak fu mu yàqoo bu mu la mukk sama koñ la fu mu yàqoo nanga lijjanti ba jot ka fa nekk nga xamal ko ne ko mën na gis naa fee teewoo boo xamante ni si dégg nga toj na nu nuy def ba defar ko bul ne ko sax nooy def da nga daan da nga daan ko nu nuy def ba defar ko. waaw ci biir kër yi itam doomu aadama yi comme ndox mi jafe woon na leen léegi yomb na leen kon jotul ndax ñu gën koo saytu ci ci jëfandikoo gi. kay war nañ koo saytu bu baax war nañ koo defar bu baax ti ci niñ koy jëfandikoo ndax defar dafa gën yàq. defar li tax mu mu gën yàq itam dégg nga bu fekkente ne yow da war a jëfandikoo dégg nga ab siwoo nga jëfandikoo ñaar ndax xam nga taajub si wa di nga ci eh, ab robinet mu fees dellu au kon nga wëlbati bàyyi li nga jàppoon dem tëj robinet ba dégg nga mu fermi dégg nga si nga jël siyon bi nga jaranikoo jëfandikoo ko loolu it bokk na ci li nga xamante ne si maa ngi ñaax askan wi rawatina jigéen ñi ak ak ndaw ñi waaw rawatina jigéen ñi ak ndaw ñi ndax li ci ëpp ci dañuy dem ci robinet bi ñoom lay doon. soxna si eh, ñu ngi lay nuyu tur bi naka la. ñu fekk la fii Daaru Karim tey mel na ni euh, lu leen jafe woon am ngeen ko muy am ndox ndax mën nga ñëw fàttali tuuti jamono yi ngeen xam ne ni amu leen ndox lan ngeen doon jànkonte waa bi mu nii moom ñu ngi sante yàlla macha allah jamono yi ci ginnaaw doo raxas doo sangu fóot moom Daxas macha allah yëpp daal mi ngi naaj. dañ ne ngoon incha allah robinet yëpp dina xeeli ngoon ñun ñëpp dañoo toog di xaar ay timis rek robinet yi xeeli macha allah koñ bi da doon riir kër goo dégg ñuy daal kenn ku ne tijji sa robinet yëpp a xelleendoo kenn demul kër kenn di rooti biñ tijjee yëpp a xelleendoo macha allah gaaw ba dee. forage bi am na fi njariñ torop wax dëgg loolu lañ doon rêvé wax dëgg ñaanal nañ leen bu baax suñu xol sedd na guyu waaw mu mel ni itam léeg-léeg ñuy xaw di jëw soxna yi ne bu ndox mi amee comme duñ fay dañ koy yàq yooyu loolu itam lan nga ciy wax seen sa moroom mi soxna yi ci sakkanal ndox mi ak gérer ko. Ah, ndox mi nag wax dëgg dañ naan ku ko yàqu-yàqu moo tax sakkanal gi moom moo gën ndax boo xoolee ne fayoo rek nu la neex nga koy consommer loolu tamit gënut ndax tey jamono yi ñu ko ñàkkee ku ne gis nañu dañoo ñuul kukk mënatuñoo am teen sax bu baax ndax roon beeg naaj bi kon nag macha allah war nañ koy sakkanal di ko defar ku sa robinet en foire nga jëndaat beneen. Serigne Diouf ñu ngi la fekk Daaru Karim jamono yee passé mel na ni da a ñàkkoon am ndox jamono yi am ngeen ko ndax mën nga ñoo fàttali tuuti rek jamono yi nga xam ne ni ñàkk ngeen am ndox ak root meeg yooyu nu ngeen ko doon dundee. ah metti lool jaaxle woon lool waaye nag sant nañ yàlla suñu borom bu baax a baax a baax fi ñu toll nii moom ñu ngi sant yàlla suñu borom bu baax a baax waaye metti woon na metti boo xam ne suñuy liggéey yëpp dafa arrêté woon suñuy activité yëpp taxaw. tijji na naka ngeen dundee situation bi nga xam ne ndox mi baawoon na saawaan. sant yàlla rek sant suñu ah sama yaay ñu ngi lay nuyu di la ziar tur bi la. maa ngi lay fay bu baax a baax soxna Anta Ndiaye. soxna Anta yéen a ngi daaru Karim jamono yi na ni ndox mi macha allah waaye ay jamono ci ginnaaw yéen a ngi doon dund ay jafe-jafe yu metti ngir ñàkkum ndox ndax mën nga ñoo fàttali tuuti ci jamono yooya. jamono yooya moom metti woon na moom ndax sama doom ji toog yàlla dimbali woon na ko sax moom amoon na saret waaye teewul man mi amoon saret sax damaa sonnoon ci ndox ndax tey mun maa am ndox samay samay dëkkandoo ñëw fii ci ci may dama daan séddoo ndox mi ba mujj maa na ñoom di wëri ñu ngi daan roote ji fee bustaan jéggi tëli ba léegi di roote ji et que suñu am sa waaye bi suñu am sa paane nag moom lu gënoon a sonn moom waaw jamono yi nemmeeku nañ ne am ndox am na fi naka ngeen koy dundee ak bis bi nga xam ne nii yëg ngeen ne am ndox am na ban yëg-yëg ngeen amoon. fi mu doon nii kay moom xanaa gën a yokk sunu jaamu yàlla na léegi boo xëyee man ngaa jàpp ba sell mën a raxas say bagaas bale toog waaye buñ ko amul woon wax dëgg daa nga xëy daanaka bala ngay raxas dangay sonn lool. am na am na fi benn suur boo xam ne sase ndox yi ci laa jënd ñeent ñu li ko ko kafe. kon jamono yi jamono yi nag moom boo xëyee moom danga nga raxas da nga bale da nga def yëpp moom am sa temps moom sango ba set fóot gis nga sama ligne gi fóot nañ ba weer ndax ndox boo ko gisee rek na nga ko gisee tax bu wët tax nga jàppe ndaxte da ngay seet ne bu manqué rek ni ngay sonne benn bi doon ndox bi daa jéem a sakkanal togg ci añ bëgg cee naan bëgg cee fóot léegi nag bu tijji neet dafa war tax da nga sakkanal sakkanal dafa baax. kii saytu wàllum ndox mi wàllum forage yooyu yan kàddu nga leen di dénk gannaaw ba ñu fexee ba ndox ñëw lan nga leen di yóbbante. dama leen di yóbbante mooy di leen ñaan ñoom itam ba tey ñoom it la taxaw ba nga am ndox rek kooku bëgg na la waaw. ana yàlla yokk seen taxawaay ñoom it. Amadou Diallo. léegi nag gis na ne robinet yi xel na naka ngeen dundee mbir moomu. ah léegi moom xanaa faggandiku rek comme xel na moom damay root lu bëri rek teg bu jeexee aussi bu bu amul borom sër bi buy dem ba nu leen di sant it yéen waa reeteet lool ndax jàmbaar ngeen dégg nañ leen noo ngi leen di soog a gis noo ngi leen di sant lool ci seenu taxawaay ci dëkk bi rawatina dégg nga ci wàllum ndox mi. ah macha allah fi ñu teg seen loxo moom foofu la yàlla na leen sëñ bi gën a jàppale rek ba liñ ci séentu lépp ñu am ci lu kawe seen jort te lu ngeen bëgg daal yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal kontaan nañ ci yéen torop. waa reeteet sant naa leen bu baax ci seen taxawaay bi. waa reeteet def nañ lu baax. ndax ndox moom fu mu amul du ñu mën a julli presque parce que yenn saa yi da jël sa satala bëgg jàpp doo mën a am ndox donc bu ñu defee lii moom def na lu baax. waa reeteet waaw maa ngi sant leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram te yàgg ñoo taxawu lépp lu lu naan ci lu baax yàlla na ko yàlla ak sëñ Tuubaa Mbàkke yegg. kon jëre ngeen jëf mbokk yi ci reportage bu am solo boobu nga xam ne nii tey jii ñu ngi ko doon defee fii ci Daaru Karim ànd ci ak waa ci fàttali rek di kuréel gi nga xam ne nii biñ sosoo ak léegi yàggul. waaye seen i jëf ñu koy def ci ndigalal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne ni mooy borom dëkk bi seeni jëf nag du lenn lu dul fexe ba bépp jafe-jafe boo xam ne nii askanu tubaa ñu ngi koy dund ñeel ñàkkum ndox ñu saafara ko boobaak léegi nag gis nañ jéego yu am solo yoo xam ne ni def nañ ko firnde bi nag fii ci Daaru Karim gis ngeen gannaaw bi ñu jaaree ci forage bi nga xam ne ni bu yàggul rek lañ ko tijji dem ci yenn kër yi jafe-jafe yi nga xam ne ni askan wi ñu ngi ko doon jànkonte jamono yi nga xam ne ni ñu ngi doon dund ndox mi ak léegi kon yéen a ko déggandoo yéen ko gisandoo dégg ngeen ne itam dénkaane yu am solo yi nga xam ne ni askan wi wax nañ ko jëme ko ci ndox mi nga xam ne nii ñu ngi koy nemmeeku ne léeg-léeg bu baree rek ñu koy yàq ñi itam fàttewuñu ñi nga xam ne ñoo yor ndox mi waa OFOR maa wa raxmati ñu gën a yokk seen i effort ba fépp foo xam ne ni aw askan mu ngi fi ci Touba ñu mën a am am ndox ndax ndox kat dafa nekk loo xam ne ni mënul ñàkk ci dunduk doomu aadama waaye reportage bu am solo bi nag duñ ko jeexal mukk te ju am solo ji nga xam ne nii maire bu Touba def na ko ndax xam ngeen ne fii ci Daaru Kanim ginnaaw bi ñu taxawalee forage bi amoon na jafe-jafe lu jëm ci ay pompe ci la yëkkati nag pompe yooyu teg ko ci loxol ofoor lu matul ñetti fan ñu monte pompe yi ndox mi saawan baawaan ba Daaru Karim ak li ko wër ñëpp jamono yi seeni robinet ñu ngi xelli ñu ngi amam ndox. kon mu nekkoon reportage spécial boo xam ne nii waareete amoon na ko fii ci Daaru Karim ngir nag indi askan wi seen yëg-yëg.